waaye boo gisee xat-xat bi nekk ci réew mi ci loolu lay àddu parce que mi ngi wax infrastructure yi nga xam ne ni président Macky Sall def na ko ci réew mi euh, Sénégal ba ñu moomee sunu bopp ba léegi dëkkee guñ ko te réew bala nga ko développé mbete nga ko dëkkee gis nga Dakaaru gi ñu nekk benn fonction rek la am benn fonction politique la am Dakar waa Dakar yëpp ngi may dégg mooy sunu capitale mooy sunu payu réew kon nag mënu lu dul yéene ko yiw pourquoi parce que képp ku jógee bitim réew fii ngay njëkk a wàcc bala ngaa tugg ci réew mi kon nag Dakar mënuñu ko yéene lu dul mu yànj mel na mu war mel waaye Dakar ñàkk dëkki gi ñu ñàkk dëkki suñu réew moo waral tey Dakar benn fonction politique la am mooy gis nga kii dafa bëgguñu ñu fal candidat Amadou Ba moom dafa bëgguñu ñu fal candidat Diomaye Faye man dama bëgg ñu fay ñu euh, fal sama candidat ñu fal sama candidat Mahammed Boun Abdallah Dionne mais gis nga dakaar bu ñu falee président le 24 mars. inchallah le 25 président bi xëy may nañ ko ba jeudi bu ñu ko doon may ba. samedi sax bu ñu ko falee day xëy le 25. président bu ñu ko bu ñu ko bu ñu ko bu ñu ko bu ñu ko falee le 24. dama li ma bëgg a wax ah, mooy. day daal di sóobu ci liggéey bi. bien parce que ñun ki nga xam ne ni moom la ñu àndal di Mahammed Boun Abdallah jon nekk jëwriñ ju njëkk ci gouvernement duru juróomi at du làmbatu du jeex du jàng door a xam fu muy teg tànkam day daal di sóobu ci liggéey loolu tax ma wax loolu. Euh, fonction politique bi Dakar am mooy bu ñu falee président dimanche àllarba ñu jonkonu ko ni ko li nga diggee woon defuloo ko jonkoni bi mooy lan. mooy toog nañu jonk nañu pour folli ko xam nga lu tax ndax euh, xelu dakaar gàttul xelu nit ñi gàttul dafa fekk ni euh, ni réew mi bindoo ak jafe-jafe yi nga xam ne ni ñàkk dëkki réew mi daf ko daf ko daf ko indi mm-hmm. loolu mooy waral jafe-jafe yi fi président bu bees bi fekk dañuy yaakaar ni moom day ñëw rekk lépp mel na mu war a mel te lim fi fekk il faut loolu rek mu loolu rek la mën a jooyanti ndakaaru nag ni ko comme da nga tële ndax ñun mayuñu la sax fooy amee afiya banaan ñu fii ngay jaar ak foo fële ngay jaar parce que yaa ko waxoon ci campagne bi ñun kon jonkoon nañ ni pour folli la lu tax loolu mooy dañu dëkkewul suñu réew mi suñu bëggee li ñuy def sotti ba kenn du ni Matam moo tane barab sàngam wala Ourossogui moo tane barab sàngam wala Ziguinchor moo tane barab sàngam nañu dëkk réew mi ba noppi waaye doo jël benn réew nga topp tefes gi dëkke ko li ci des lépp nga bàyyi ko boobu jafe-jafe. aménagement du territoire. aménagement du territoire réew mi fokk ñu dëkke ko.